ni ngeen ko gisee nag ma dalal tey nag ñaari champion ñaari ndaanaan yoo xamante ni tey jamono ji ñoo lëmbee lam làmb ji ñoo yëree bësu làmb ji ki féete sama ndeyjoor bébé Elton nga xamante tey phénomène la waaye ki dajal nag calcio koo xamante tey yaakaar naa ne mbor bu dajee ak moom da nga koy bàyyi xel si waxin waaye da nga koy bàyyi xel si bu arbitre génnee seen diggante waaye nag avant dara rek damay dalal bébé Elton bi nga xamante si taw bi sonn lool ah champion bi borom géeje waaye maa ngi lay nuyu di ginnaaw bu ñu yàlla julli ci yonent bi maa ngi sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Ousseynou Mbacke mu sëñ Ateex ah, di sant kilifa diine yi ah, di sant kilifa aada yi di sant waa géej waay gi ma jóge ah. di sant waa Kaba waa Alub waa Thiès waa fatik Njongoloor Casamance ñëpp maa leen di sant di leen gërëm heure bu ma jugee ñu jàppale ma. di leen woo ci sama combat bi nag le 18 décembre maa ngi ciy woo bépp autorité bu nekk Géejawaay maa lay woo ci sama bis bi le 18 décembre sama diggante Kalso. Kalso champion bi ndaanaan bi borom Gambie borom Afghanistan borom Angleterre borom parcelle bi jaar naa la. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla laa xawla laa xaw wala quwwata illa billahi al laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin asalaamaaleykum wa rahmatulah wa taalaa wa ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci Seydina Mohamed sangu sang yi maa ngi gërëm samay ñaari waajur di gërëm les quatre points cardinaux l'est l'ouest le nord et le sud et en ba di gërëm bu baax a baax yow mi nga xam ne yow ma invité fii Bougar di gërëm bu baax a baax sa caméraman Momo di gërëm sama adversaire. Bébé Elton nga xam mooy hmm, nit boo ñëwee fi nii da ngay nuyu ñi nga xam ñoo la fi indi. waaw bu ma jugee foofu nag maa ngi eh, nuyu waa Sénégal jugee fa nuyu waa gàmbi jugee fa nuyu waa Afghanistan sama dëkk jugee fa tamit di nuyu ñi nga xam ni ñoom ñoo ñuy seetaan parce que doomu aadama oh, waaw amul kenn ku dul intermédiaire eh, intermédiaire internet amul kenn ku dul internet yaa ngi déglu ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Lutte TV di leen ñi seetaan Lutte TV en même temps mu jugee fa tamit Lutte TV maa leen sant bu baax di nuyu ki nga xam mooy grand buzz nuyu Lamine. nuyu ñi fa nekk ñëpp ak jamaïcain bi nga xam seen xarit la parce que man fii kër gi duma fi du ma fi tubéy bu ndaw tubéy ju mag laa fi. parce que waaw c'est je suis un grand boobu ici xam naa fi bu baax a baax. di nuyu ñëpp nag bàyyiwuma kenn. di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn internet képp kuy waajal pour dem màggal yenn ñi seetaan di TV kuy waajal dem màggal yal la yàlla yóbbu ci yoonu jàmm nga egg ci jàmm ñëwaat ci jàmm booy dem yàlla nga yóbbaale xaalis bu bëri nga ñëw ci jàmm demaatum ci jàmm di waa ñi fi jugee bu ñu fi jugee yàlla teg leen ci yoonu jàmm bu ñu fa jugee gàmm gi nga xam te lañ jëm tamit suñu mbokk tijaan yàlla leen yàlla yóbbu ci jàmm lépp lu waaye di wut nga am ko yàlla la mais gaynde dañ laa nuyoolu nuyoolu non non mais damay ñaanal ñi nga xam laa nuyooloo loolu après suñ kanam la dama dégg ba pare di baax a baax sama sëriñ sëñ Abdourahmane Fall Tilala fu mu tëdd nga waroon njëkkee nag foofu nga waroon a njëkkee di ñaanal ki nga xam ni moom moo toog ci xalifa bi mu sëñ Abdou Aziz di ñaanal tamit nga xam ne mooy sama sëriñ sama xarit xool ñu koy wax suñ Fallou Fall Tilala borom Ansar suñ Fallou Fall maa ngi ñaanal bu baax. di ñaanal ay taalibeem ñoom Moussa Fall Tilala gaa yëpp bàyyi ma kenn sëñ Massamba Sarr suñ Jili damaa bëri ay sëriñ ñëpp maa leen di ñaanal. ñëpp yaa di ci lan nga nekk. waaw maa ngi sant yàlla. maa ngi samay entraînement ànd waa école de lutte Balla Gaye ñëpp. di sant di profité di sant coach Lamine fay mbës. quatre heures du matin la ñuy yee ñuy dem entraînement ngoon gi ñu dem contact gi kon ñu ci liggéey bi ku gis bébé Elton xam ni mi ngi ci liggéey bi waaw di wax sama supporter yëpp nag xam nga nan xaar le 18 décembre lu bees tàq laa leen génneel barki yu waaw man pare combat bi xam sama combat la. combat la moo tax mu nekk sama combat parce que dafa am lu ma bëgg woon sénégalais yi. sama supporters yi dafa am lu ma leen bëgg a wan ci jëmm ji. kii du dara. kii kii kii kii su ma ko jàppee barki Seydina Mohamed. bala maa dee moom buy wax naan ma ay supporters yi kii li maam billaay feesul néeg bi. barki sëñ Tuubaa Mbàkke kii mi dem kii man géejawaay géejawaay géejawaay dëkk la kii mi dem làmb ji xamañ lu ko topp quatre personnes ñi toog ci mikaayam ñi tàgg toog ci mikaayam ak Lamine Golo mi nekk course bul bul bul bi muy génn seen waa kër ña ko topp seen bundu kër lay am man man maa gis lépp. kii kii kii kii dama bëre bi ma bëre moom nii dama koy dimbali may ko bës te yàlla tax man sama combat bi yow ñëw nga ba may def ba may def open press ñëw nga la ñëwoo waaw di ñëw nga sama koñ. bi sax bi làmb jënd. Mm, waaw man ñi topp ci làmb dañ may topp tey yàlla tax. mais toppul daf a xeeb waaw daf ma xeeb xeeb na xal mu lakk daayam. waaw parce que man gis nga gis nga ñi ma ñi ñi ma am ah, sama premier combat sama adversaire daf maa gis xeeb ma. bu ñëwee sama pneu bi barke Seydina Mohamed ku ma ku ma gis. un moins zéro égal ñaata. ku ma ñaari combat la final sama premier. yow maa la ko tane yow mu neex. Calcio eh da ngay nekk nit eh da ngay nekk nit. nit ñi ñoo ñuy seetaan nit ñi may seetaan man ñii. gaa yi ñu waaw waaw man samay xarit doon dafa nekk. waaw léegi danga may déglu. waaw déglu ma waaw déglu ma dafa war a bàyyi wax ne bu ñu ay samay samay combat samay nangam kii kii ma neexee du ma bëreeg moom man maa ko ëpp gën ko riis palmarès. dàq ko waa kan la fi daan Boucar léegi kan la daan mais kan la fi daan eh. laajal ma ko loolu kan la fi daan. sama burki démb Ndiaye laa fi daan parisien. moo da daan kenn yow kooku dóor la ba ngay Philippe nga naan nii na. nit ku baax du soor. dóor la ba ngay doomu aadama da war a xalaat. nit del xalaat guddi gu jëkk ci bàmmel. waa waa léegi da nga xam ne da nga mos a. waa léegi waa léegi léegi yow combat bi naka nga ko waajalee ak Calcio mii lim ak li nga ko fa man loolu laa bëgg a xam. Calcio mii dama bëgg a wane sama bopp ci moom. barki Seydina Mohamed waa géej waa ñëpp a ngi may dégg. déggoo li ma la. kii xeeb na xal mu lakk daayam. te billaahi wallaahi taala jour combat bi li ma koy ñaan mooy bu mu arrière na taxaw at bu suuf leen na dëggal boppam bu taxawee dama koy dóor mu daanu. bu barki Sëriñ Tuubaa bu bu buy nekk foofu di daw dinaa ko dàq ba jàpp ko door ko mu daw. lii moom maa la ko wax. Domaine Bougar. xam nga ni kii dóor moom nii. yow da yow say say lii lii mu yor lii mu yor daa baax kii kii lii mu yor daa baax muy naan baaxul eh Bougar kii li muy naan baaxul. suul sama ndey ba léegi mi ngi appaat ba nar a gaañu. alxuraani man doomu ñay laa xam lañu may la gudd fan ak wér gi nga am téeméeri at nga doomu ñay yow nga mag ñi fi man ma toogee man ma toogee ma toogee lekk lu baax donc damay doon ni ma ne waxatu ma laa yow yaram bu daa baax sa yaram bi yëpp ay réew la yow sa yaram bi yëpp ay réew la dañoo bokkul man maa man maa ko ëpp doole bi kii sa yaram man kii man maa la ëpp doole man maa la ëpp doole waay waay bi di lang nii xaadim su meeku xaadim neuf mois nga ni waa doom lii mooy lan. yow man kilifa laa man kilifa laa man damaa sol lu rafet. kii xaalis doom yow kay li nga doon wax li nga doon wax maa ngi gëm li nga wax nan laa takk xala yow kay lii tax yow booy dox di yaar lii moo tax yow yaa mu woon dañ laa takk xale yow sa bagage baaxul parce que lii moo ma taxoon booy dox di ŋaayee ko sa biir bi di lang nii nga mel ne ku nekk huitième sa lii war nga ko rus a génne non wuy ma doom yaay deel liggéey sa abdominaux yi non lii dafa ñaaw waa xool lii di lang nii xoolal lii momo momo xoolal lii non xoolal lii biir bi di lang nii non yow ngaa ñàkk fayda waaye xoolal biiram bi di lang ni xoolal biiram am nga barki rasulullah yow waroon nga parce que lii nii xam lii day xam si àdduna bi ñëpp nga seet jaaw yaa ngi yow war kii waru nga a xam ñëpp ko xam mais da barki rasulullah ngañ watu la yow ki la wot wot bi watu watu tonton azoxydé rama bi nga wot nii bàyyi nee naa la nga bàyyi di ko watu nga nefi di yaag sa multicolore yi nga mel na ku li ma sol mën naa jënd li nga sol mën naa jënd seen waay. Fall sa dàll yu bon lii yow de sa dàll yi warul lii ko ko teg ci géeju Cameroun mu yóbbu la Las Palmas. lii yoon la lii lii yoon la <laughs> dàll yi mu sol lii yoon la. doom yaay lii Fall Momo Momo Momo Momo yow nante nga xam nga dàll yi lii ñaata lay jar su àqulaay taala. yow lii lii motu ko barki billaay walaay ba taalaay kii bu bu jaaree fi bu la dëggee nga tataanoor <laughs> sa couleur yi bare nga mel na ko drapeau Île Maurice. 60 couleur mi bëre mi mel na drapeau Île Maurice xam nga Île Maurice couleur mi bëre comme drapeau Île Maurice non non kii dafa war a bàyyi daf dala sa biir bi wala ki da bëggoon sumi doom day def abdominaux barki maam Thierno Birahim Mbacke bu la jàppee barki la naa la dinaa la dóor bay maa la gën a baaxee la gën a soxal yow tàppet nga barki rus laay combat bi naa ko dóor bay jaabiraa ci kawam dinaa ko dóor bay jaabira wala di gin ngay ci kaw ma suul sama ndey dinaa ko duur bay jaabira ci ma man alxuraan yow mënoo xeex amoo garde nooy doole nit Fall tàppet nga Fall lii da nga xam ne kii bu arbitre soufflé bu taxawee ma dóor ko mu daanu barke alxuraan boo boo boo daal ma dàq ji la dama dinaa la duur bay gin sa kaw wala di jaabira bu la neexee bu ñu wàccee ñu may ko ci suuf. bu la neexee barke Rasulaay la duur ba nga. yow nekk na ma nangam sàngam yaa sa yow da ngaa weng yow sa weng kii comme R4 bu mu ne naan mbay nangam sàngam. non non dama xam ne kii bu taxawee di wax nii ñun dañoo nekk ci. ñun ay Baye Fall taaliba maam Seero Fall a doon ay Baye Fall maa la a doon Baye Fall fuuf maa la a doon Baye Fall non dara yow yow yow Gambien nga lii ma sol yow yoroon nationalité Sénégal lii yow Gambien dañuy magal màggal gi dañuy màggal 18 safar gi Gambien nga yow Gambien nga kan jënd carte d'identité yow Gambien nga yow ngay Gambien yow yow da ngaa ñëw fi yow yow Gambie nga juddoo waa léegi dëgg man Afghanistan a ngaa léegi yëpp loolu yëpp waxuñu ko. Afghanistan waaw ah, ñu ñu fii ñu rente. non le douze seretul. kii dinaa ko dóor bay jaabiraa ci kawam man suul sama ndey ji ma jóg. nga wax ma ni nga ko waajalee ba pare. Hmm? combat bi ni nga ko waajalee laa bëgg wax ba pare parce que Calcio. Hmm? xam nga tey da ngaa dëkk gox. waaw dëkk gox boo ma ni roi des arènes fa la ne. waaw boo ñëwee si làmb ja am na la war a andi. kii dëkk géeje waaye dafa dafa gane si mhm. la jaral. Mhm. parce que moom moom nee na lépp lu mu laaj dina ko def. waaw bu ma jógee foofu man maa ngi ñaanal mbëru parcelles yi ne am nañ combat yi yëpp ki nga xam ne moom moo fara jëkk bëri di tijji suñu drapeau ren mhm. mu nekk aada fa euh, kii mu nekk euh, Tafa Mbër Tafa Mbër sama booy la maa ngi ñaan Tafa Mbër yal na la yàlla may ndam lu sedd guy ci kaw aada Fass di ñaanal Garga 2 tamit mi nga xam dafa am combat parce que après day bëre mu am ndam bu ca jugee man maa war a bëri man tamit di ñaan yàlla may ma ndam yàlla may ndam yàlla ma yàlla may ndam parce que kii dafa jël lépp moom teg ko ci loxo nit da ngay jiital yàlla fii yàlla moo fi ne lu dul yàlla neen la yàllaa fi ne tey moo fi ne suba moo fi ne gannaaw suba les quatre points cardinaux l'est l'ouest le nord et le sud maa ngi gërëm quinze euh, quinze mille habitants yi quinze mille habitants yëpp maa leen di sant di leen gërëm parce que dañ may jàppale quinze mille habitants yi non maa leen di maa parce que man fépp la sama supporter ne quinze mille habitants yi maa leen di sant di leen gërëm gars yi nee na ay douze mille habitants non non quinze mille habitants combat bi maa ngi ciy ñaan tey combat bi damay ñu di indi loo xam si parce que man njàmbur njàmbur laa te yoo xam ne ku ni njàmbur ni Louga te ku ni Louga nii. Moodu Moodu yi. bàyyiwuma kenn sama rakk yi. ne maa ngi woo waa États-Unis. may déglu sama rakk yi ne kenn sama rakk yëpp a ngi bitim réew ak samay mbokk. la moo tax demoo la moo tax demoo maay maay waay. Eh, quarante cinq nga moo tax demoo quarante cinq nga moo tax yóbbu. yaa ngi la expliqué. mi nga xam ne moom moo nekk suñ maire dëkk. Moustapha Diop ministre Ahmed Aïdara maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. Moustapha Diop yaa ngi dëkkale R4 ak 4 4. bàyyi si yi fu Aïdara Ahmed Aïdara. mooy mais daf may la. Ahmed Aïdara daf barki Sëñ Touba Ahmed Aïdara mën naa jënd Moustapha Diop ay waay waay waay Ahmed Aïdara mën naa jënd Moustapha Diop laa la wax ñun man foofu maa ngi fa am sama grand boo xam ci Ahmed Aïdara maa ngi koy sant di ko gërëm daf may jàppale Lat Diop Lat Diop du dara Lat Diop bu géej waay kooku Lat Diop du dara Ahmed Aïdara moo maa ngi koy ñaanal mu jël mairie géew ak ñëw Ousmane Sakal Dieng hmm. Ousmane Sakal Dieng moom moo jëloon champion Scrabble yow bàyyi bàyyi nit ñi ngay wax te xamul xamoo leen ñooñu samay mbokk lañ xamoo leen ba pare ma fa jógee tamit man maa wuy ma. ñaari champion ak ñaari ndaanaan ñaari mbëru gox parce que fi mu toll nag tey Bébé Elton yàlla dafa def nga xew waaye ki ngay bëreel nekk mbër moo xamante ni tey dafa xoromoo cat ba fin côté ambiance nag naka ngeen nar a assurer journée boobu noonu tey si côté ambiance. waaw ñu ngi pare tous les côtés. waaw ñu ngi pare tous les côtés di woo waa géej waaye ñëpp pour ñu ñëw jàppale ma sama koom. bii passé def lu bees ñëw xëppoo soow. gars yi stati ñu naan sa soow ma la sa soow ma la. déggoo li ma laax. 17 paanu soow laa wayal mi ngi kër ga 17. 17 paanu soow boo dugalee kaso dem. barki yomal xiyaam 17 paanu soow laa wayal mi ngi kër ga incha allah ci kàttanu yàlla combat bi moom mii sax dinaa ko taxal soow. amateur ñëppay taxasoo te damaa génne fecc bu bees tax le 18 décembre laa koy laa koy intégré incha allah non fecc bu bees sax la barki yonent bi dama cee génn non lu bees sax la loolu su ma ko génn barki yonent bi génn lu bees tax Kalso moom li ma koy wax lenn la damaa bëgg mu taxaw xaar ma bu mu def dara ñaanu ma ko dara bu mu def dara barki alxuraan bu taxee dama koy dóor mu daan buy daw dinaa ko daw ba dàq ji ko daan ko. Fall kii di wax kii ma nekk di wax ak moom nii sax damay gën a tardeel fi sama bopp. xam nga lu ñëwagul mu dinaa ko def nangam naa ko def nangam naa ko def nangam nee naa la kii. man benn combat moo ma dese woon ci làmb sama carrière benn làmb ji nag moo ma ci des dama koy bëre bàyyi te benn sëriñ bu nekkoon Niger dëkk bu ñuy Dooso xam nga Dooso nee na moom da nga mas a def crime ci làmb te ba ma wax crime man kam bëgguma def crime ci làmb boo ma gisee ñaan ñaan ma def crime MMA. mun ma noonu làmb Sénégal da nga fa def crime te moom mi ci moom laay defee crime bi ay mbokkam nag booy boo ñu teel a wax ak moom kii dinaa ko liggéey mu yàqu bisu làmb dinaa ko dóor mu faatu. musoo gis mbër moo xam ne dañ ko dugal ci ambulance yóbbu ko ci morgue ba ci moom mi lay doon. ci moom mi lay doon. non non non kii. yow bul mu débat bi Fall kii barki Rasulullah kii dinaa ko liggéey ba mu yàqu. lu ma bëggul woon ci làmb sax. Boucar lii baaxul de. lu ma bëggul woon ci làmb lu baaxul lii baaxul nii combat bi dafa ma jaral lu mais lii daa baax baaxul. kii ma jaral lu mais mais lii baaxul. yaxu yaxu yaxu jàmbur la for ci ci àll ba yaxu jàmbur la for ci àll ba ñëw di ko indi. non yaxu ja lii daa baax. lii ba moo. lii daa la lii baaxul lii daa baax. taalaay billaay walaay wa taalaay kii dinaa ko liggéey mu yàqu. kii Fall baaxul Momo. Sëñ Saliou kii dinaa ko liggéey mu yàqu. kii nee naa la non jégalu bàyyi dinaa ko liggéey mu yàqu. bàyyi yàq yi ngay for di ko doo liggéey kenn da ngay sóob. doo liggéey kenn. Fall kii xamul sax yàqu lal la kii dinaa ko liggéey mu yàqu. nee na yàqu lal la lii nii. sama gàllal la lii presque <laughs> lii def naa man presque lu mat 15 ans. <laughs> ay di ay 10 ans. Ah. waaw parce que sama am na benn émission mu defoon ak yow man damaa mosoon a jël mbappatu mbaam maa ko jëkk a jël ci Sénégal. mbaam sëf amul Sénégal histoire Sénégal lii di boo demee lii di lii di kanamu fas nga ne yee kanamu mbaam la yow yow yow xamoo dara ba pare. bii boo demee carbone 14 bii Cheikh Anta Diop ne. maa ngi ci mémoire foofu. histoire Sénégal maa fi jëkk a jël. da ngay sóob loolu dara mbaam ma jëloon nag ba ma ko jëlee dama ko doon bayloo ci tool yi. mbaam ma benn xëy laa ci am ñaareelu xëy mbaam ma wàcc liggéey. léegi ba mu wàcc liggéey nag ba mu demee ba xam ne yóbbu nañ ko ca sànni ko ca ginnaaw raay ba ba mu demee ba xam lépp dañ ci laa jël bopp bi ñu jox ma ci tegtal moo tax fu ma jëm di yóbbu man ku ne foo lii fu ma dem mosuma ko yóbbu ci làmb nag mais làmb ji dafa ma jaral parce que. instant bii bu doon gàllaajam la dëgg bu la dina ko indi ci làmb. làmb ji paase dañ koo dóor ba muy bëgg a dee. bii tey mais nee na nee na ans la nekk ak moom lii. kii nee na 15 ans la nekk la moo tax combat bi paase andi kii day sóob da koo for daa bàyyi yàq yi ngay for di indi. bu fekkee gàllaaj bi bàyyi yi ngay for di indi. da koo buuju kii wuy ma kii de kii kii di buujumaan dégg naa. fay xoolal Gambie buujumaan la fa nekkee. doy ay man kii bëgguma ko woon a liggéey mais dinaa ko liggéey mu yàqu. yow da ngaa am sëriñ yow yow sa sëriñ yi mënuñoo xutba sax sëy. barki Rasulullah mën na leen naa ko liggéey mu yàqu naa ko liggéey mu yàqu. sa sëriñ yi mënuñoo xutba sëy fi mu toll nii xam nga sama combat bu le passé sama combat bu le passé gàllaaj yu bari dama ko wàññi woon parce que bëgguma teg doomu aadama loo xam ne lu yoon parce que làmb kese mais bii nii waa ji ko liggéey ba polomam yi mu wax ni dafa yàqu dana gën a yàqu man sëñ Medoune Seye borom tawféex moo nekk sama ginnaaw yi dana gën a yàqu sëñ moom nee na ma keroog mun ma polomam yi dafa yàqu sëñ Medoune Seye sëñ Medoune Seye borom tawféex moo nekk sama ginnaaw combat bi sëñ Medoune Seye yaax di def ni tànk yi polom yi yàqu moo tax muy dox noonu dinaa ko gën a liggéey nag polom yi yàqu man sëñ Medoune Seye borom tawféex moo nekk sama ginnaaw. combat bi sëñ Medoune Seye borom tawféex laa ji àndal. bu ma ne la kii naa ko liggéey naa ko liggéey te kii dinaa ko duma dinaa ko daal dama koy dóor mu daanu sax kii. man du ma bëree kii dama koy dóor mu daanu yow amoo garde amoo dara lamb wax ju bari moo la ci dugal. non non non non dañoo. lii mooy mystique moom yàq bu nu for euh, bopp euh, yàq bu nu for mooy mystique. lii mooy musique waa lii mooy lii xoola pétaaw bi ku la wax bu góor la bu jigéen xamewul bu góor ak bu jigéen pétaaw bu góor ak bu jigéen xamewu ko fal bari daa xam dara Sallum Mbàkke billaay walaay wa talay jàmm jàmbaar boo amee mbokk booy boo nga dem wuti galaaj déggoo li ma la bi ci nga jóge bàyyi lamb yow ba faaw sama combat ak yow bii ci nga jóge bàyyi lamb naa la fekk dama lay dóor daan yow mo sëriñ maa la ëpp ay takkatu sëy lañ yow yow da nga xam takk mariage doon nga am da nga xam dara xamoo ay yaa gën a niil ci làmb dama lay dóor dama lay daan sama sëriñ boo taxawee dama lay dóor nga daan sëñ Medoune Seye moo ma woo moo mu ñëw mu ñu ma carrément ki ngay ah, bëreel na taxaw kon ne ci loolu nga ko ah, en tout cas bañ sa biir bi di wàcc nii déggoo li ma la naan yow sa réew yaa ngi nii sa yaram ñu ma woo sumeeku ndax sa réew la da am ay réew ñun dañoo civilisé da ngay xeesal baal xeesal bi xoolal ñun dañoo civilisé euh, ñun ay moo civilisé wu man li ma sol mën naa jënd seen. dëgg mun naa li ma sol sa la Lacoste simis bii ma sol nii man ah, lii un million lay jaar drapeau xool xoolal li mu sol drapeau un million. nga mel bi six cent mille lay jaar. kii mel ne cent mille lay jaar. Faal xalaatu dugg dëkk ci bàmmeel léegi waxuñu loolu xanaa xamoon ne bis dana ñëw nga dee kii déggoo li ma la wallaay walaay 45 ci watu ji ba son mënoo cee tekki nga ne da ngay dem ci xaala rasulullah xaala sallallahu alayhi wa sallam naa ko yàq jëlal waaraate bi teg doo dara mënoo yàq picc doo dara waaw doo dara moo yow lii da ngaa sa bët benn bët bi sax du ngay nekk yow ngay gumba xoolóoral dama laa arrangé di bëre yow lii doo dara fi mu ne xamul li muy wax na ko wax ci kaw yow lii daa baax lii daa baax lii baaxul lii baaxul lii baaxul lii baaxul bu yow kii kii day dara dinaa la liggéey ba sa problème mi yàqu kii mun taxawoon léegi ma dóor dinaa ko liggéey ba problème yi yàqu dinaa la liggéey ba sa polo mi yàqu sa problème yi yàqu ni dana gën a yàqu mais ma lool de moom nee na cinq bi mu amee jabar yàgg na mais cinq ans mi ngi sëy mënul fexe ba am doom xanaa kon kay moom polom yi moo baawul amul doom amul takk amul dara cinq ans mi ngi sëy kan non man damaa rus sax xanaa man sax man sax man man man mi nga xam tekki naa sama xala bi man mi nga xam tekk naa sama xala bi ah waaw dama damaa takkoon sama boobu xala waaw ndax làmb bëggoon téye sama bopp bëggoon bëggoon dem jël non nan dégloon te mu neex. dama taxoon sam bopp xala. ah a ndax xama lan la. ndax waaw parce que parce que dégg na damaa dugg ci làmb. damaa waaw nan dégloon te mu neex. waaw nan dégloon te mu neex. doom lay bu ka damaa takkoon sam bopp xala. waa déglu ma may déglu. yow tu war am biir bi. ah Boucar. damaa takkoon sam bopp xala parce que làmb daf ma jaral. yaa may dégg ma takk sam bopp xala ndax bëgg a punkal ci laa bëri sama premier combat bëri sama deuxième combat bi mu bëree deuxième combat ba pare ma dem euh, dindi ko léegi semaine ba paase laa dem euh, Casamance dindi ko bërgi dem ma woo paa bi ñu ne ma paa bi wàcc wàcc na xoolal xoolal li ma làmb naroon a yàqal no maanaam euh, da koo ba pare barki démb laa woo paa bi téléphone. semaine bi ma fa demee bi mu ko tekkee damaa ñëwaat. bu ma toogee in semaine. damaa booy déglu ma rek ma expliqué. yaa may dégg xamal xama xamal ma la. ma toog deux jours. ñun xonq ma toog deux jours woo paa bi téléphone. damaa woo paa bi téléphone ñu ma faatu na. xoolal li ma làmb naroon a yàqal. maa waroon tuddee si sa téléphone doom. te incha allah ci kàttanu yàlla dinaa ko tuddee doom parce que dindi na maa ngi war a tuddee Kéba Kanté doom parce que combat bi daf may jàppale nee na nee na daf jël o sérieux nee na am na booy boo xam ne wax ju bëri incha allah ci kàttanu yàlla. kalsu kii Kéba Kanté. un million la ma dig ci combat bi incha allah ci kàttanu yàlla dina ma jàppale dina dina dina ma jàppale dinaa duma kii dinaa ko daal. moom xamul ni Kéba Kanté moom Kéba Kanté moom wax noonu moom indi ci làmb ji. xanaa kon bu boobaa boo gisee mu ne ma da nga nooy def daal lu wér te mooy. mais maa ngi sant bu baax may jàppale. waaw da nga may déglu après waa da nga may déglu. xam moom moom moom moom ma fekkoon ma nekk. waaw da nga may déglu après ma def ma volcan ma dem dama koy sant. waaw pël du ma ko fu ma mën a dem ci àdduna dama koy sant. Hmm. muy les quatre points cardinaux l'est l'ouest le nord et le sud ak bas ak en haut yëpp hmm. fu ma mën a dem dama koy sant. mais gis nga kii yii muy wax nii kii magum jëm la. momo hmm. kii magum jëm la kii bu taxaw fi naan ay dañ maa takk xalaa dañ maa nangam. doomu aadama bu fekkee sa polo mi baaxul da nga naan polo mi baaxul moom gën nga ne fi naan ay sëriñ bi nangam ak nangam yaa ngi dellu mi ësu moom mais mais mais moom cinq ans la sëy mënul am man looloo ma jaaxal xanaa bu fekk kooku kii du ma am lu ma koy wax ci loolu loolu du am cinq ans xam nga doom xanaa jaasir. doom doom yàllaa koy maye. <laughs> doom <laughs> yow ma jaasiree nga mun a <laughs> doom yàllaa koy maye. doom yow lu ne yaa chaque jour yaa ngi def noonu. Eh, pour bëgg am doom mënoo fexe ba am doom dinaa ko am parce yàlla moom mooy maye doom. te bu soobee suñu borom li ci kanam rawul bët. mais li muy wax ni ay sëriñ bi dafa ma takk xalaat dafa. maa ngi nuyu mafia 2012. mafia mafia affaire baaxul da ngay xam affaire baaxul parce que kii boo ko doxee muy yàng tànk yi. di mel na man nii la ma yàlla bitee. kii gis nga buy dox day mel boo xam si dafa yeb ciment. Boucar xam nga R4 yemee ciment nii lay def. xam nga R4 at na ciment kii buy dox day mel na R4 bu yeb ciment. nit da wax li nga xam te moom mooy dëgg boo tax fi di wax naan say sëriñ say nangam mais man yàlla damaa bind ni mu ma bindee nii ak maa neex man nii la ma yàlla bindee bindu bindu yàlla doomu aadama ni man mënu ko changer man nii la ma yàlla bindee lii ci la ma ñëpp bëggee ci la may jàppale man nii la nii je suis ci nii ma mel dama ci fier tu es fier quoi ci nii ma mel nii ma mel dama ciy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla yàlla dollil ma waaw di woo waa géejawaay ci combat bi waaw faut pas faut pas le français. si tu ne comprends pas français ne parle pas français pourquoi tu parles français et tu ne comprends rien. my name toi tu n'avais pas fait les bancs. tu tu pas français tu parles pas anglais. my name. what is your name what is your name boy maa la gën a dégg anglais fuuf. waaw don't don't tell me yeah. Why you tell me me uh, I am uh, in your heart? No, no, no. Why no, me that? No, c'est pas vrai. Like no, no, You, inside my name. Don't Elton, is Kim. fils maa la gën a dégg anglais king waaw my name fils de Elton the king man maay sa waa maay sa roi maay sa roi yow da neex yow yow da ngaa neex yow toogal foofu waxul lool nan wax ci combat bi tam Boucar Boucar maa ngi nuyu sama mafia 2012 mafia de waa waa waa waa di my heart

waxuma lool de taalibe maam Cheikh lool man ah, man xalaatoo guddi bu njëkk ci bàmmeel booy da ngaa jëm ci làmb ba sonn mënoo dem léegi da ngay waanaat léegi waxuma lool Boucar Boucar waaw waaw léegi nan dégloonte mu neex waaw man day wax lesbienne nan xam nga li lesbienne nan dégloo rusaay moom ak dóor yi mu ko naa nga dóor yow mënoo dóor kenn parce que amoo gan yow amoo gan waa waa nan dégloon te mu waa léegi déglu. mais déglu wa waa mais déglu déglul moo expliqué. yow doo dara. danga pourquoi tu maa ngi nuyu mafia 2000. la distanciation la <laughs> Covid bi tax dama lay dama lay expliqué. parce que yaa ngi wax di jege Bokar. waaw en ce moment on est dans à la léegi boo waxee fula ba pare da ngay déglu. non non dama waa déglu la distance. waaw léegi maa ngi nuyu sama mafia waa 2012 mafia 2012 bi maa leen di nuyu. mais man 2012 laa judd 9 ans laa am 2022 laa am 10 ans loolu yàllaa ko def dugal géej waaye nga laajte. ban hôpital 2012 laa juddu roi bu dee laa juddu demal demal demal laajte. yamuma kenn mais man mais dama wax ne ci man. dem yaay. 2012 laa juddu. 2022 laa am 10 ans lii moom maa la ko wax. te incha allah maa ngi nuyu waa géej waay di woo. ci moom mi dara maa la gën a wér fuuf. da nga waxuma la. la daloon moom mi lay dal. kii mu dem géej fajar yow oh, yow kii. kii te Boucar dee ko wax mooy entraîneur. Boucar nit ki entraîneur dina am biir. mais mais maa ngi yow kii biir day takk génn lii rus koo génne. barki rus kii dafa lekk ginaar. sa yaram sa yaram bi ay réew ba mu fees. doole doxul jàmm man dama laa ëpp doole. yow amoo doole yow amoo doole li ngay naan li ngay naan baaxul. yaa ngi lox yaa ngi trambale yaa ngi lox yow yow man nga Fall boo ko yoree te amoo gaan lii barki alxuraan kariim Fall boo waxee sa xulaay taal da nga xam ne yow du duxul jàmm miskil bi mu yor miskil bi bay jaabiraa ci at am nga ko yow téeméeri at am nga ko na wér na loxo bi bi wér na mën na dóor dara barki alxuraan kariim day soob dara jotu ko doom yaay nit euh, parisien dóor ko ba muy raam man loolu loolu su ko defee ci laam ma bàyyi kii xam naa ne man ci lañ may tëjee police. ndax la ñu lay. man kii laa ci yow amoo garde bëgg a bëgg a dóor dinaa ko faat ñu tëj ma police. mais kii dinaa ma police. <laughs> ma wax mais waxuma loolu de. parce que kii nii gis nga. li wax nii rek dana tax. dóor kii maa ko naroon a dóor dama ko naroon a dóor ba bu génnee saako yi ma bàyyi ko. mais bii yoon barke alxuraan karim li ma wax ci lesbienne nii. dinaa ko dóor ba bu génne ci saako yi même bu yéegee ci kaw tribune. mais Boucar ku am garde mooy mooy dóor mais ku am garde xanaa mooy dóor nit mu daanu mais yow amoo garde mais waxuma loolu maa ngi sant waa géejawaay di woo waa géejawaay ci combat bi waaw waa léegi déglu nan déglu nan dégluante mu neex waa dé waaw waaw maa ngi jéggi léegi maa ngi jéggi yow da nga maa gën a jàng waaw jugal fii ngay xulleeku doo dara da jum. ci màggal lañ jëm. am sorry. ah waxaatal nga ni. booy booy. am sorry. yeah waaw léegi waxuma loolu. maa ngi woo waa Géejawaay ci combat bi. waaw di woo waa Géejawaay. waa Gunaas waa Parc waa Baxdaad xam nga waa Teli Karo waa Parcelles ëpp mu fa ay supporters mi ngi nii. foofu laa jëm. ñoom Modou Lama ñoom mu ñoom Modou Lama ñoom Birima ñoom Mor. Babacar moom moom euh, Babacar. moo ma joxoon lii. moo ma ko jox. barke Serigne Touba. yow lii nga xam ni daaw ba ren yaa ngi koy soogaan Babacar. daaw maa lay sant bu baax di la gërëm. moo Baba Babacar moo ma solal lii kenn ku la solal Babacar bu mu la ma maa lay sant waa waa di nan dégloon doon waa déglu non mais bu mu ni ay Babacar ni mu def ni baaxul waaw mais déglu ma nan ay Babacar moo ko solal mais Babacar moo ma solal yow kan moo lay solal waaw waaw waaw léegi déglu ma yow sa multicolore bi nga mel na Babacar maa lay sant di la gërëm di woo Pape Thiaw ci combat bi Pape Thiaw Pape Ndiol Grand Cheikh Ndiaye Petersen maa lay woo Pamar maa lay woo ah mbin gay gi di woo ah, di woo ñëpp di woo waa Petersen ñëpp ñu jàpp Ahmed Aidara Ahmed Aidara waaw Ahmed Aidara Ahmed maa lay woo ci combat bi di la ñaanal xam nga yàlla na nga jël mairie Guédiawaye bi Ahmed Aidara maa lay woo ci combat bi combat bi damaa bëgg nga jëndal ma bolog yu bari parce que ñun yow yow lañ gis yow lañ waaw da waaw da nga may déglu. Ahmed Aïdara man ma woo Lat Diop man Lat Diop mooy sama mère. doomu ndeyu Waly Lat Diop doomu ndeyu Waly. yaa may dégg. Waly seen sama boy. xoolal maa Ahmed Aïdara maa ngi koy woo ci combat bi. parce que tànkam luwul kenn. borom mouvement Guédiawaye laa bokk. yaa may dégg combat bi damaa bëgg nga jëndal ma bee yu bari. di sant Alsaan di sant waa Géejawaay di sant waa Géejawaay ñëpp xam nga di sant waa Parcelles di sant ñeex borom marché Dior. noxore yi ñuy ñeex ñeex ñeex borom marché Dior maa lay woo ci combat sama mafia parcelle bi moom moom. xoolal noxore force gi mu takk. lii seen lii bu la jamee da nga paralysé. jugal fii yow xamoo dara voilà momo. maay woo ñeex ñeex borom Colobane di woo may sa sant yàlla boutique ci combat bi may sa maa lay woo maay woo Babacar. waaw da nga may dégg. <laughs> Ah, après nga boo bàyyi ko boo. non après da nga xam yow kay lii tax mënoon nooyi. jël sa nuxara fas gi yeew ko sa ndigli ba. da nga maa dàq nooy yow. barke saa yi mënoon nooy. waaw jugal ci yow boobu ba léegi yaay ji yow. sa nga li ngay woo man am fi ngay gis nga géejewaay ñun ñëpp ko bokk. géejewaay mooy parcelle man Lat Diop Lat Diop kii ànd moom sama rakk la Waly mi nga xam ne. Ahmed Aïdara man gën a jege gën a yee Ahmed Aïdara man yow laay woo ci combat bi woowu ma kenn Ahmed Aïdara yow laay woo di woo waa géej waay ñëpp Ahmed Aïdara combat bi sa combat damaa bëgg nga jàpp ci bu baax Ahmed Aïdara yow laay waxal. dama damaa Ahmed Aïdara ba pare léegi wax nga Ahmed léegi moom bu sante yow nga santaat. comprendre nga santaatal. Mm-hmm. ba pare maa ngi woo Lukaku. Lukaku man Lukaku footballeur bi ne Chelsea. Lukaku da góor gi si maa lay woo góor gi si Dieng góor gi si léegi góor gi si góor gi si góor gi si maa lay woo ci combat bi. damaa bëgg góor gi si maa lay woo ci ko waxuma lool. Lukaku mii toj ñi. fu ma tool damay déggante ak moom. loolu da yaa mën a sóob yaa yaa mën a sóob moom bokkuñu jàppale. yaa mën a sóob man góor si jee moo nekk sama ginnaaw ak Ahmed Aïdara. man góor gi si jee moo nekk sama ginnaaw. yow ñaari télé moo ak Ahmed Aïdara man namuma dara. góor gi si jee moo ma woo téléphone ni ma léegi. góor gi si yow yaa man yaa sama yaa son en tout daal góor gi si jee combat bi c'est damaa bëgg nga jàppale ma. combat bi si da ngay sóob man góor gi si jee léegi laa coupé moom. combat bi combat la. xam nag sama combat bi li mooy maanaam yéen da ngeen ni nappante napp man damay bañ ci jour ji amateur am déception ngeen ñëw foofu noonu. barke alxuraanu karim barke sëñ. xanaa lenn mu ñor moom xam naa ne am na fi du daw. mais lenn mooy ma tag lenn. moom mooy ma tag ko ci gàllaaj ba du ñëw. tag ko loolu moom mënoo ko moom dafa gëm yow mënoo ko yow loolu mënoo ko. xam nga man lamb dañ ma lamb lu bari dañ ma. sëñ Medoune Seye borom tawféex dégg nga waa ji sëñ Medoune Seye borom tawféex combat bi nag sa combat la. combat bi sa combat la sëñ Medoune Seye borom bi ci yàq nit muy moom mi lu leer daal la expliqué jox mu jël temps moom mu wax ko ko neex. Ahmed Aïdara waa géej waay ñëpp maa leen di woo gis nga waa ji dafa bëri wax. waa dafa bëri wax sëñ Medoune Seye borom tawfeex sëñ Medoune Seye borom tawfeex maa lay woo ci combat bi waa Géejawaay ñëpp maa leen Ahmed dara combat bi nag sa combat la góor gi si jee maa lay woo ci combat bi ñeex maa sa joor aw ma sa fay moo yor sama fan si club bi parcelle maa ngi koy maa ngi koy woo ci combat bi waaw di woo may sa buti di woo ndongo ndongo kolobaan maa ngi koy woo ci combat bi sama xarit la sama doomu yaay la ndongo kolobaan euh, kii maa ngi woo maa ngi woo maa ngi maa ngi woo kii maa maa ngi woo may sa sant yàlla buti may sa sant yàlla buti combat bi sa combat la yaa woo maa woo xaadim xaadim xaadim sant yàlla bu te maa lay woo di woo ñëpp waa géejawaay di woo ñëpp waaw danga may déglu danga may déglu déglul la distanciation mais yow amoo benn savoir vivre waxal mu ngi lay ruube de please waxal Ahmed Aïdara combat bi sa combat ni nga ko takk nii dafa garaaw da nga koy tekk yow booy ñëwati yow taxoo ko ta xoola daal yi daal sàmmkat yi xoola xoola daal sàmmkat yi mu indi drapeau il Maurice bi daal daal sàmmkat yi yow lii war nga koo sol xanaa seen waa kër gisuñu la bi ngay ñëw lii seen waa kër bi ngay ñëw xanaa gisuñu la maa ngi woo Ahmed Aidara maa lay woo ci komba waaw parce que damaa bëgg mu ñëw parce que ñun géej waay moom lañ gis ku ci am problème moom ngay ñëw mu taxaw la jàppale la instant dafa voyagé Fall jël ma ci combat bi damaa bëgg mu jàpp ci combat bi damaa bëgg mu jàpp ci combat bi sa combat la di woo Mansour Diop Mansour Diop sama xarit sama doomu ndey doomu ndey Ahmed Aidara maa lay woo ci combat man maa mbëru Ahmed Aidara di woo waa Guédiawaye may sa sant yàlla bu te maa lay woo ci combat bi ñeex maa sa joor ah, ah, ah sëñ Medoune Seye maa lay woo ci combat bi sëñ Saliou Ngunda yaa may dégg ñeex maa sa joor maa lay woo ci combat bi euh, sëñ Ousseynou maa lay woo ci combat bi. waaw da di woo waa Géejawaay ñëpp di woo di sant Elton di woo Elton sama combat bi Elton bii paase may nga ma trois cent mille bii di ñëw waaj dafa bëri wax damaa bëgg mu xama nga nga jàpp ci bu baax kii dama bëgguma bëri moom deux secondes bëgguma ko. damaa am yow Elton mi nga naan bébé Elton yow mën nga wax sa tuddi sa bopp papa. Elton bëgguma bëri kii deux secondes dama bëgg nga jàpp ci bu baax di sant Fallou Ndiaye di woo waa xoola waa Géejawaay ñëpp maa lay woo le 18 décembre sama le 18 la incha allah boo taxawee. Calcio barke alxuraanu karim boo taxawee combat bi du mat seconde boo taxawee dama lay dóor nga daanu boo dawee ma dàq la foo nekk naa la fekk combat bi dama war a wane sama bopp te incha allah dinaa wane doo dara yow you inside my heart doo dara ay soob doo dara I'm the king king <laughs> T'es fou. Oh, dara danga manga rek. You are crazy my friend. You don't speak English, you don't speak French. You don't speak English, you don't speak French. My name me is the Elton Ezim Kim. I am my wife from England. Mm. It is about that I speak English very well. My name is the Elton Ezim King. Zem King. Since four years. Doo dara da ngay soob déggoo dara maa la gën a dégg fuuf doo dara. kii lii lii lii dafa du yoon sax. waaw may ah, sama xarit sama doom day momo sànq may ma woon. dama lay ruube dama lay ruube dama waaw. waaw maa ngi sant waa Géejawaay di woo waa Géejawaay. waa Kaba maa leen di woo ci combat waa Thiès xama Kaba Kaba laa dëkk. barki sëñ Tuba Mbacke eh. kii xam fan la dëkk kii Mozambicain la. <laughs> yow Gambien nga di. yow yow Gambien waaw bëgg a ñëw fii bëgg ñëw ëpp làmmiñ fii doomu Sénégal ñëw fi xool di woo waa Guédiawaye ñëpp waa marché bees maa leen di woo di woo Cissé téléphone combat bi bi sa combat di woo Paya bisab si yaa ngi koy maa ko a a ñemelu mett tàgg bi noo yëgle sant maa ngi sant maas man xam na damaa jàng français ñu nit booy ñëw da ngay yor dara nga bind. waaw day gaaw maas mbeng ndongo Colobane maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. maa ngi gërëm maas mbeng fi dir may sa sant yàlla boutique maa lay woo ci combat maa ngi gërëm. xaadim maa lay woo ci combat bi. waa koñ ba waa Gunaas maa leen di woo ci combat bi. ko ci yow. maa ngi sant Bukar. teg ko ci sama ndey bi di sant waaw Lamine bu Lutte TV maa ngi koy sant di sant Bukar. Ah, taalibe sa ah. doom yaay di taalibe maam Saliou waaw di sant Issa di sant ah, gaay yi sant waa Géejawaay baax nga waaw ah. parce que temps bi nga ñu mañ yëpp gis nga doomu aadama xolam nu mu bëree di sant Fallou Ndiaye bu baax Fallou Ndiaye sama xarit la sama doomu yaay la maa ngi sant Fallou Ndiaye bu baax daf may jàppale sant nag bu baax waaw waaw di sant waxoo ci dara non non bàyyi ma rek damay sant sama xarit maa ngi sant Fallou Ndiaye daf may jàppale. waaw moo tëgg combat mais daf may jàppale. waaw maa ngi koy sant. maa ngi sant Keba Kanté di ko woo ci combat bi di sant zoo technique. zoo technique maa lay woo ci combat bi. Lay Sabali Daouda mu ndaw Zal Diatta Malick Diatta. famille jaata jaata yi famille Ndiayene famille Kone Kone. maa lay woo ci combat bi combat bi sa combat la. waaw Kéba Kanté maa lay woo ci combat bi. Moussa Ba Moussa Ba di Moussa Ba waa Guédiawaye ñëpp di leen woo ci combat bi combat bi sama combat la dama bëgg ngeen jàppale ma. di gërëm Moussa Ba Diop. sant Alioune Sall Alioune Sall maire Guédiawaye sant Malick di ko woo ci combat bi. waa léegi jeex na léegi nag ñu ngi fan vraiment kontaanaa naa si ñaar si déplacement bi. taw bi vraiment jaayante ngeen ba ñëw ma leen si bëggee bu baax. di leen nag ku si nekk yow baax. Ah. yow dañ lay sant di la gërëm parce que yow parce que yow bugaan bugaan bugaan waaw waaw déglu da ngay déglu jugal fii. xam nga Boucar Boucar maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm parce que sama premier combat damaa daan mu ñëw seet si ma ba géejawaay loolu nekkul lu tuuti ci man lu ngandee la ci ma barki sëñ Tuubaa maak yow ba roi des arènes amal jàmm barki Seydina Mohamed leen daal laa la xamal Boucar yow li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal yaa ak sa caméraman bi xoolal ak gars yëpp képp kuy nekk li TV maa lay siyaar di la bëgg ak Issa waaw Baye bi maa gërëm ñëpp di sant ñëpp di woo waa Géejawaay nag ci combat bi Malick Gakou maa lay woo ci combat bi Ahmed Aïdara may sa sant yàlla bu di ñeex borom marché Dior maa lay woo ci combat bi si kooku sama doom ndey la moo ma yor ñeex borom maase jo si téléphone damaa bëgg nga jox Boucar sama doomu ndey téléphone waaw Boucar dama bëgg nga jox ko téléphone parce que borom baax la nit ku yàlla baaxal la di sant sama fans euh, fans bi nekk France waaw di sant sama fans bi nekk États-Unis di sant waa waa France waa New York waa Espagne waa waa waa waa waa Kaba maa leen di sant di woo Ahmed Aidara combat bi sa la waaj dafa bëri wax ndongo Colobane combat bi sa combat la ñeex borom Massa Dior gis nga comme ni ñu ko defee woon waaw di sant waa géej waa ñëpp. turu jàmbur ngay woowee ay ñeex. nit ki day wax turam moo bàyyi waaye ñeex ay ñeex ak ay maafe ay cere cax yooyu nga def ni bàyyi sa ñeex borom Massa Dior kooku sama doomu ndey la. waaw moom mu wax. waa yow yow rek la ñuy ñaanal. bii yoon moom waa Lutte TV kese la ñuy ñaanal ñu jël ñaan bi teg ko parce que nit ku baax nga. waaw ah, ku baax la bu bu bu caaxaan demee wax dëgg des. nit ku baax gis nga sama sama combat bi mu passé da ngaa bàyyi si yii yëpp ñëw ba ci jël si ma nekk sama koñ xam nga loolu rafet la barke alxuraan karim te loolu. loolu ñëpp la koy defal moom borom baax la lay ñaan daal yàlla na la yàlla defal gudd. tey nag tey nag mooy sama anniversaire tey nag mooy sama anniversaire tey. waaw happy. waaw waaw TV. dundal dundal ba découragé barke yonent bi sa dund gi am na njariñ doomu yaay bébé Elton yaa wóor borom xolu jamaa bi barke sëñ Fallou yow loo dund doyul billaay wallaay talaa sa dund gi am la njariñ di wax gaa yëpp ñu ñaanalal ma sam waa ji Boucar joyeux anniversaire happy birthday to voilà joyeux anniversaire à mon tata kori naate tata kori naate déggoo dara da nga bàyyi ma ñaan ki dama ko ñaan hmm? xoolal mi ngi àpa xamul lu muy war a wax je une longue ah ii xaw gag fu ma déggee français dama lay ñaanal gudd fan. wér voilà loolu nga xam. <laughs> di lay ñaanal yàlla dàqal la seytaane cet musiba balaa deegu ñaaw. di lay ñaanal nga dund dund dund ba découragé ba def nii suñu borom merci dama rappelé naan ko xanaa yàlla da nga maa fàtte. dundal ba jël sa portable di def yàlla merci dama rappelé. loo dund doyul. di sant Fallou Ndiaye bu baax Fallou Ndiaye maa ngi koy sant bu baax. ay ñoom. billaay seen fii Lutte TV yàlla na dem ba àdduna xam nga waxoon naa la temps yële ma leen waa Afghanistan sax dañ lay déglu yow fii nii jamono ji ñu toll nii fan yële paas maa ngi natt sax ñu ni waa Israël ñu ngi leen dégg te xam nga Israël Afghanistan <laughs> bu ko yàlla na leen ñëpp dégg cameraman fii baax la moom di sant waa golf Angleterre my di sant sama mbokk njaago yi in taaca paaca melo ko tiis ajo waalo min joo di sant sama mbokku njaago yi in taaca paaca mi la aju waalo min joo waaw sama mbokku njaa in taaca paaca mi la aju waalo min joo sama mbokku njaa laatin faatin jaaban di sant sama mbokku séeréer yi fogal na mu sim naanum fop yow xan warin de yow xan warin de yow xan warin de bandiraɓe alpulaar min ko foof neex na neex na ñaar ñëpp di leen jaajëfal parce que gis nañ circonstances yi ku na xam ne ne démb dafa yendoo taw tey mu yendoo taw ngeen jaayante ba ñëw tey foo ñu woo dañuy ñëw parce que yow borom xool bu rafet nga barki yonent bi man bokk naa ci ñi nga njëkk a jël booy interview li TV bokk naa ci ñi ma njëkk a jël barki Serigne Touba yàlla na la yàlla may jàmm xam nga na ma woo ki agressé rendez-vous ki quatre barkir laaj 4 heures ma matin la ma woo ni ma car rapide premier car xam nga fu mu dëkk ci géej waaye daa sori ah. côté fule moom ma nga dëkk gannaaw marché bu bees zo technique ah. maa lay woo ci combat bi di la ñaan nga ma nga may ma kër gu ma dugal sama waajur zo technique yow laa ñaan loolu kon nag gars yi kontaan rek si ñaari champion yi nga xamante ni tey gis ngeen leen kontaan nañ waxtaan bi neex na lool xumb na lii la amateur yi bëgg lii la supporter yi bëgg waaye lii la internet Lutte TV yi bëgg di leen jaajëfal ñoom ñaar di leen ñaanal rek jàmm di woo ñëpp le 18 incha allah rabbi ñu mobiliser ñëw seetaan leen ah. yàlla def que le meilleur gagne di jox ñëpp di jox ñëpp rendez-vous bu subaak jàmm wala ba benn yoon jaabira sa kaw waaw c'est anglaise peinture carreau lampe bu leer nañ climatiseur ah la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 votre quincaillerie de référence.